la ci te defal ci ñu kawe suñu jot jiital ci nuyoo bi ak ziar bi ak ndokkeel gi sunu kilifa gi nga xam ne moom lañu fekk si tey di ko ziar di fi dundal euh, fàttaliku gi ñuy def ci xew-xew bi mu Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Mouhamadul Fadel moom Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhuma ko ñaanal yàlla yàggal ko lool te wéral ko yeggale ay naalam ci kër Cheikh Fall ak kër ak ci yoon yépp rek ak ci lislaam bi mu ànd kook ay magam ak i rakkam ak njaboot gépp ak euh, nun taalibe yépp itam ni ko sëriñ Gana waxee jataay bi dafa bokk ci jataay yi ñuy waajalee Kazu Rajab Euh, di ci waxtaane ngëneeli weer wi ak xew-xew bi ak ki nga xam ne moom la ci suñu borom ci jamono mu ràññiku ci jamono jëf ci loo xam ne ñépp teg nañ seen bët ñépp dégg nañ ci seen nopp muy Cheikh Mouhamadou Fadel buñ ko dee waxtaane te fekk ñépp xam ko ñépp sopp ko dañ cee jublu rek euh, wane ne nii mu mel ni ko suñu borom melal mooy li ñuy wax idéal mooy fu fa nga xam ne fa la ñépp war a téen di ko xool di ko toqante ko di jéem xëccu jëm fa ni ko sëriñ bu mag bi waxee ne nit yàlla yi ñoo donn yonent dafa waxoon ne fa maa yafi mujizata nabii yajuusu fi karaamati lwalii li annahu waarisuhu fal anbiya xujaju rabbina ala alxalqi iya wal awliya li diinihi wa sidqihi saxiixi lépp loo xam ne ak yonent def na ko ñu koy tudde kawteef wàlliyu mën na koo def ñu tudde ko karaama nga xam ne wute waaye jëf jenn lay doon ndax ki koy def kenn kee mooy sunu boroom bu dee ci yonent bi da koy def ngir dëggale ko ne kooku ñëw ci yéen ne maa ko yónni lépp lu mu leen wax dëgg la lépp lu mu def it noona la mooy ni ko sëñ bi waxee ne euh, waxi am ama ala sidqihim dalilu fa mojisatun anzalil makaana qawlihi taala sadaqa abdiaza fi ma saa xaw na taqa kon kawteef bu ko yàlla defaree ak yeneen da ci da ko ci seede ni jëmm joo ji ñëw ne maa ko nii wax na dëgg bu ko defalee karaama nag bu ko defalee waliyu day wane ne kooku yoon wi jaar foofa la foofa yoon wa euh, kon xam leen ne ci dëgg la nekk la mu nekk mooy diine ku wuuteeg moom yaa jàdd bu ko defee mu nekk ab tegtal mooy wal awliya adillatu tasxiixi li diinihi wa sidqihi sax ñooy wane kon euh, ne fañ jaar foofa la ndax bu doon foofa yàlla du leen far du leen defal lam leen defal kon waxtaane leen mooy jàngale diine mooy leeral ko ci misaal muy dund bu ko defee waxtaan wi dañ cee bëgg a jéem a wane ay fànn ci dund Cheikh Mouhamadou Fadel euh, bu ko defee ci njalbeen ñu wax ne dafa am Sëriñ Fàllu suñu borom jagleel na ko li ñuy wax inaaya ak ngëneel inaaya mooy lu yàlla fàggul jaam bi ci baaxu boppam rek la jiitu muy ñëw jamono mu nekk waajtaay ci moom nga xam ne moom jaam bi amut ak fàggu ca loola loolu bu ko seetee ci sama fàggu day yaatu lool dafa bari lu suñu borom tànnal mu doog ñëw tànnal na ko aw askan wu tedd woo xam ne ñu ngi bokk mooy askan yu gën a tedd sax ci askan yi ndax ñaari askan yi bokk mu Mbàkke ak Mbusoobe ñoom ñëpp seenu askanu ci askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wér na ñoom seen sharaf wér na te mooy askan bi gën a tedd ci askan yi kon ci suñ askan woowu la ko suñu borom tànnal tànnal ko ci biir askan woowee koo xam ne dañ koy misaal ci jant ak koo xam ne ko misaal ci weer cheikh sëñ euh, Saka wax na ko mu dëppoo bu wax yi euh, sëñ Ashari abu abu euh, Cheikh Ibrahima Diop al Mashari mu ne mooy doomi Shamsin wa Qamar Mbàkke bu soobee duñ ko jàpp kon kuy tànn bu jógee ci diggante jant ak weer kooku tànnal nañ ko ay jaaruwaay ñu tànnal ko aw tur muy tur wi gën ci tur yi muy muhammad wutal ko ca aw melo wu ràññit muy alfaadil nga xam ne e, muhammad alfaadil sëriñ bu mag bi wax na ci moom tóondo wala wax sëriñ bi wax na ci moom ci mafaatihul bishri ay bayit yoo xam ne turandoom la cay wax waaye bu ñu ko settantale dañuy gis ne maanaay wax ja ak barke ba feeñ na ci Cheikh Mouhamadou Fadel moo ci bi waxee ne yaa fadilan faddalahu alxalaaqu yaa yow boroom ngëneel li nga xam ne yàlla mi yàlla mi bindkat bu kiimaane bi xalaaq la mooy aj bind waaye xalaaq mooy bindaakoon mooy koo xam daal feem wu ne mën na ko ci bind feem wu ne maanaam xeet wu ne mën na ko bind lu ne rek mën na ko def waaw loolu day wane ne kii muy wax nii kon yàlla feeñal na kiimtaan ci bindiinam sax dala wax xalaat yow ku gën ki nga xam ne bindaa kon bi moo ko gënal yow mi nga xam ne ci sa la ma yàlla teqalee ku ñàkk euh, yaa faadil faddalaxu xalaaqu yaa am bi faaraxa waajahtuka al yawma wali razaqu kaana bi ma tanmu bihi arzaqu maa ngi jàkkaarloo tey ji di waxante ak yow te yàlla may na ma loo xam ne ci sa barke ci la wërsëg di yokkoo ma ak barke boo xam ne yokk wërsëg saa su ne mahawta ani ma bihi nifaaqu ani maha wa jaa ani faral nga ma luy xeetu naafeq ba mu far ci man te sama lépp dox na jaani na fax sama lépp dox na di xeexu màgg màgg ci lislaam boo xam ne feeñ di ci Cheikh Mamadou Fadil feeñ du hasard am na ay junj yu ci nekk yu bari bu fekkee ne Cheikh Mamadou daa feeñ ci bisu ajuma feeñ ci weeru rajab feeñ ci guddi gi rañaan mi yàlla dogal mu tabax jumaa ci Tuubaa jiite ko jiite jiite salaatul jumaa ay ati at loolu am na ab junjikoon ndekete feeñ gi ci guddi googu am na lu ko booleeg julli am lu ko booleeg jumaa waaw loo xam ne man su ko caa déggee ci biir junj googu kon tànnal nañ ko itam euh, bis kon yooyu yëpp ay tànneef la yoo xam ne dañ ko ko tànnal te ñëw ñëwagul woon boobam loolu di ay tawfeex yu bari yoo xam ne yu yu yu yu dajala loolu nag li muy tegtale mooy kon am na ngëneel lu ko suñ borom waajal lu rëy rëy loo xam ne tànneef yi yëpp bu dajee daf koy junju te bi ak dundam doxee ba ñëpp teg ci bët gis nañ ne junj boobee tànn di doon def ah, leer na Cheikh Mouhamadou Fadil nag nekk koo xam ne ni ko arab yi waxe shaxsiyatun fadda wala shaxsiyatu mutaaddidatul jawaanibi wal abaad jëmm la ju bari fànn am dafa dajale ay fànn yu bari yoo xam ne fànn goo ci jël waxtaane ko mu doy ca kiimaan doy ca royukaay ndamam it doy ca ndam ci yooyu nag lañuy jukki ay benn benn rek ci li ci waxtu wi maye bi ci njëkk mooy ci fànnuk xam-xam xam-xam day lu am solo loo xam ne képp ku ñuy ku ñu képp ku yàlla bëgg mu liggéeyal ko ab liggéey xam-xam la koy njëkk a jox euh, sunu maam Aadama bi yàlla bindee suuf si bëgg ko fee indi ba mu ko waxee malaaka yi malaaka yi jàpp ne ñoo fi war a gën a yey ak nekk yàlla daa jàngal daa xamal aadama da ko joxul xam-xam bu mu joxul malaaka yi wa adama aadama asmaa kullaha wëlbatiku laaj lam xamal aadama mu laaj ko malaaka yi xamuñ ko mu wax aadama ne ko wax leen ko mu wax leen ko ñu ne ko leen sujjatal kon xam-xam boobu gis nga moom la jox suñu aadama bu ñu ko bëggee indi fii ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla yoon nii ko wax iqra xam la ko njëkk a mooy la ko jàngloo kon xam googu mooy li jiitu ci lépp ci képp koo xam ne ku yàlla jëf la xam la koy njëkk def def jox ndax ci xam la lépp yi e, tàmbalee lépp loo xam ne ñu ngi koy def te tegul ci xam loola du mën a wér du mën a mucc ayib fànn googu nag waajal nañ ko ci moom Cheikh Mouhamed Fadil waajtaay bu mat sëkk te kawe daana wax ne Cheikh Mouhamadou Moustapha sama mag ju baax ji ak man dañoo jàngal bañ ne ar ñu yar ñu bañ ne nër ñu yeenu bañu ne jar kon fànn ko xam ràññiku na ca lool ràññiku ga mën nañ cee jël ay firnde yu néew bi ci njëkk mooy ci wax ci waxi boppam ci topp mooy jëfam ci topp mooy ay seede yu ñum jamonoonteel seede bu dee ci waxi boppam wax na ca Mbàkke Bawol ci kanam mbooloo mu bari wax ne Mbàkke gii ci laa defe ci la jaxe sama ndaw te wecciwuma ko daal wax ne borom bërëb bi mooy sëñ Mor Jaara moo ma jàngal tawxiid jàngalaat ma alxuraan jàngal ma xam-xami arab yi daal wax ne ku dul ka moom ak moom mi ma booleel yii maa ko na a xam hmm. kon loolu moom ci wax sedd na kon moom xam-xamu boppam wax yi mu daa wax lépp lu la sëñ Fall wax ak loo ko xam-xam bu la ko waxee nga jàngaat ko njàpp bi ko jàngalee fii ñëpp dégg ko ñëpp dañoo def dañoo dañoo te mooy bunt bi njëkk ci bunti baabu taxaar moo njëkk ci fiq ku ne jàpp jàpp ne xam na ko waaye bi mu koy jàngalee na mu ko waxee jàngalaat na ko ñëpp mu ne booy jàpp dangay yow ndox mu sell boo fee nga raxas sa ñaari loxo bala nga ko duggal ci ndox mi mu koy taqal boo ko raxasee ba mu set ngir nga xam ne ndox mi laab na danga danga koy mos dangay galaxndiku xam ne safu dara ndox nga fóon mooy nga saraxndiku xam ne xëeñu dara lu dul ndox xëeñu mhm. dara lu mu sa xëy nga xam ne ndox mi sell na nga daal di tàmbali sëlmu nag foofu la jàpp tàmbalee nga gis ne lii ñëpp xamoon nu ñuy jàppee waaye li mu ci wax bi mu ko waxee ñëpp jàngaat nañ am njàpp lislaam tënk na ko ne mooy rek lislaam lu yaatu la waaye juróomi yëf moo ci ëpp solo bi ci njëkk mooy seydina amul benn but mu dul yàlla seydina muhammad yàlla moo ko yónni ngay julli di woor di joxe asaka di aj màkka lu ci ne mu faramfàcce ko ci tënk daal yi wax ne loolu boo koy def boo ko defee lu ci ne boo ko defee la muy jël ci sa waxtu du bari euh, kon jàmm yàlla yomb na bu defee nag boo ci jógee nag nga jihaar nga sax ci jihaar jihaar boo ko déggee baat bu rëy la da ngay defee nag xam ay gobar ak i jaasi di di di di jànkonte waaye mooy nga not sa bakkan bii lii la yàlla diggal mu diis ci sa bakkan mu teral la ko mu neex ci moom ca ngay not sa bakkan naq ko ca di ko ko defloo di ko defloo lii la digal di ko bàyyi loo ko te muy metti moom ba mujj nag miin ko ba mu neex ci moom nga yar ca sa njaboot waaw ci ci nga xam ci wenn waxtaan rek jàngale na ci diine jëpp kon ci ay waxam déggee nañ ci euh, ak bari xam-xamam euh, ak ak peegam diine ci alquranul karim ci man gi mu ko mënoon bàyyi sëriñ jasar nettali na ma ma déggaat ko ci bàyyi sëriñ Moodu moom ñu ne ñoom ñaar ñëpp ñu wax ne sëñ Fall moo wax ne euh, dafa am bis mu woo ko moo fukki nit ak benn jox leen ab kaamil bopp cosaan wan leen ko kaamilu cosaan boobu donnante boo xam ne dañ ko daa donnante ci askan wi ku ci mag yaa koy yor mu nekkoon ci loxoom ba yàgg mu mel da caa war a jóge dem ci yeneen ni loxo loolu la ñoo ne gisoon mu woo leen ñoom fukk ak ñaar moom Cheikh mu Fall ca la bokk wan leen ko bañ gis ko mu ne dama bëgg ngeen bindal ma kaamil te xool ko ci bii wax leen bind ya xët ya na muy toll ak xët bu nekk ñaata bind cay nekk ak na mu ko bëggee nee na bañ ko defee ba yeggal bañ jébbal ko kaamil ya mu fab ñépp xool da ko ba mu ñëw mu yëkkati kaamilam moom Cheikh Mouhamadou Fadil ne ko sa sa kaamil bii la ma yàlla digal ma taxaw moom àdduna ak alaaxira hmm. moom la digal ma taxaw àdduna ak alaaxira daal ko cay bindal ay arafi barkeelu euh, bàyyi sëriñ jasar nee na kaamil boobee sëriñ fàllu booba la nga xam lu bokk ci kaamil ba ba yàlla dogal bi mu nekkee xalifa mu am bis mu dem ci barab ba di ziyaare ji euh, laaj téere bu mu jàngee ñu yëkkati kaamil booba jox ko ca barab ba ci téere ci barab ba ñu yëkkati ci kaamil jox ko mu xool muy booba waaw mu xam ne la ko sëriñ boo xam na mooy kaamil bii nga xam ne tey moom lañ móol muy kaamil bu tasaaru bi ñu bari jot ci di ko jàng mooy boobee bàyyi sëñ Moodu moom nee na ma sëñ Fàllu ne ko bi ma defee kaamil bi ma ko bindee ba suñ bi nga xam ci loolu laa ko ne am na lu ma naqari woon lool ci sama xol de ci liggéey bu ma la liggéeyaloon mu amoon ko waaye tey jii la loola de mu ne ko see sëñ bi yéemu ci mu ne ko waaye nees nees denc aw naqar boobee ba léegi waaye tuub ko nees denc aw naqar boobee léegi mu ne ko ko jaral ko dégg nga daal di koy daal di loolu kon seddale la kon ci nekkoon fukk ak ñaar yi ñu tànnoon ñu bokk ci ñi sëriñ bi gën a taamu ci alxuraan ñu tànn ko ca moom loolu seddale kon ci euh, taxawaayam ci alxuraan ak fam ca tollu ak lii ma wax it seede ci xam-xam bu dee ci wàllu xam-xam bi lee mu ca wax doy na waaye suñu al ustaz Talla Mor Talla Mbaye ñëpp xam nañ ko fii dafa wax ne dañoo jàng ci sëriñ Seex Sëy sëriñ Seex Sëy am lu mu ko jàngal mu desee koo dégg mu wax ko aw bayit boo xam da koo desee da koo fàtte te ñu njëkk ña dañ daan xaw a laaj seen sëriñ bu leen bu leen waxee lu ñu lu ñu desee dégg nee na mu bind lettre sëñ Fàllu boobu arab bind ci aktubu ilayka hazihi risalati asihi risalati suñ par jàng ne ko risalata asihi risalata nee mu diidiital mu ne ko risalata nee na moom ku ku nanguwul mu ne ma wa in ata kasmun muarrafun bi al ba'dal ba'dal isharati fa atfun aw badal tali ko bay waaw fekk bay woowu la ko seen seex seex sëy waxoon mu fàtte ko ba mu fa jógee mu daal jàpp yi dikk nag ci sëñ Cheikh say nettali ko mu ne ko sëñ Fallou moo ci moom nga dégg bay di ci làmmiñam mu ne ko waaw mu ne kon sëñ Fallou waat naa ne moo moo raw ci réew mi ndax xam naa ne bay dii moom maanaam téere nax bu juróom fukki at yi moom wéeru ko ci amul jotu wéeru ko fi kon bu fekkee mi ngi xam li ba léegi moo raw ci réew mi kon loolu seede la suñ ko seede sëñ Cheikh say ñëpp xam nañ ko borom xam yi gënoon a bokk ci borom xam yi gënoon a siiw ci jamonoom jàngale xam fii ci eh, Touba mbindum mbindum Sëriñ Fallu seede la mbindam seede la ci xam-xamam Sëriñ Fallu yitte ju ko ñor lu mu rëy rëy lu mu yaatu yaatu mën na ko wax ñaari bayit lu mu bëgg a wax rek mën na ko wax ñaari bayit ba muy ndokkeel sëriñ bi ci matu jumaa ji ñaari bayit la ko def ba mu ziyaare ja maam Cerno ñaari bayit la ko wax ba muy ziyaare sëriñ mag bi ci béréb bee mu nekk ñaari bayit la ko wax nga xam yitte ju ju mën doon rek mën na koo tënk ci biir ñaari bayit wax ca la bëgg a wax lépp mhm. loolu day tekki ak jekku ku mas a waye jox ko ca jataay ba nga wayee jox ko ca jataay boobee lay waye tontu la ca baxru ba nga waye ca xaafiya ba ca rawiyu ba turandoo sëriñ bii ñu ne ci wetam sa Mouhamadul Bachir sëriñ Fallou gane ji ne ko nasru mu way ñetti bayit jox ko wax na zaaral xabibu fa marhaban ahlan bihi min sayidin nadbin huma min naa bihi min sayidin talfil talfil ufaata tulfil ufaata bi baabihi de waaw de faxlul mi haadal qalbi gayra munaxasin bi rixaabihi kalla wala bi saxaabihi watruk la day yasmal wadaa'i fa innahu zikra yuharriku lil muazzabi maa bihi mu ne sama soppee sang bu tedd bi seet si na ma maa ngi koy dalal sang la bu kawe daraja daal ne ne ko maa ngi lay dalal waxuma la ci biir kër gi de waaye ci sama xol laa la dalal maa ngi lay dalal ci sama xol mu yaatu lool euh, wàccal ci xol bi xol bi yaatu na te xéewal yi ci kër gi ba tey yaatu na baatu tàggoo laay ba ñu dégg bu ma tàggu mukk ma damaa bëgg dellu ndax baat boobu soo ma ko xasee bu ma ko fàtt saa soo demee bu ma ko fàttikoo tee rek sama xol day naqari Sëriñ Fallu tontu ko ca saasa ci baxru bi mu waye ak xaafiya bi ak rawiyu bi zurtul xabiba nat ba yaa ajaban bihi min sayidin tulfil ufaata bibaabihi mustamtirina nawaalahu wa kal xaysi min baadin jilaa'i saxaabihi maa in ubaari aasilan fi xubbihi innal mutayyama qad yulaamu lima bihi gis nga waaye sëñ Bachir yëpp ci bihi la daanoo waaye importance yëpp ñu ngi daanoo ci bihi la ko la mu ko waxoon lépp tontu na ko ci biir wax ji te ñetti bay la ci benn baax bu ci benn wax noonu la doon def ci képp ku ko mos a jox loolu kon day wane wàcc waayam ci xam-xam nga xam ne bu fekkoonte ne rek xam-xam dong la ñuy xool da cay mat kiimtaan mat ca sëkk royukaay cig taalibe ñépp dégg nañu mu nettali boo ko sëriñ bi wooyee moo magam bi baax sa Moustapha ak sëñ Massamba ak sëñ Mor Roqee wax leen la mu wax ak bayit ya tontu yaa ayyuha shaykhun murtajaa yaa faatixan maa kaana qablu murtajaa beextu bunuwwati bil iraada lakum bi kay oxsal xar saada min baadi ma shtaraytumuha minni ahdaytuha lakum bi xayri manni faltaqbaluha yaa malasu karama la ziltuma bayna albaraya alama bi jaahi maxdumikum bi jaahi maxdumikumul mufaddali xayril awaaxiri maana uwali salla alayhi wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karrama daal cay teg inna li jawaabil kitaabi xaqan ne ko yow sëriñ bu tedd ñépp yaakaar nga xam ne yaa ubbi bunt bi tëju woon buntu tuub ak yegg ci yàlla jaay naa li doxoon sa diggante ci njuleel jënde ko ak taalibe ngir am xarbaax ndax dañ ne ku ku deful xarbaax doo am xarbaax waaye boo ko jëndee ba nangu ko ba noppi la nga may nar a fay naa la ko addiya daal koy ñaanal ay ñaan ne ko nag bëggoon naa ku ma tontu sëriñ bi tontu ko ne ko amal jawaabu fi l masalatayni fala nafsu ma uxfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kaanu yamaluun wasalaamu aleykum yasurukum wa ko li yàllay faye bakkan buy ci àdduna mënu koo xam yomal xayaam rek lay leer yomal xayaam nga xam fa la yàllay faye ñépp seen jëf bu la fa yàlla fayee ñépp teganoo ci bët mbir ma leer waaye mënees ko xam mënees ko wax ba nit mën koo xam fii ci àdduna rek ñu ngi tolloon ci di waxtaane lan na ci liy firndeel taalib ak Cheikh Mouhamed Fadel ci diggante mag Cheikhul Khadim radiyallahu anhuma wax ñu wax ci cofeel bi mu soppoon sëriñ bi ba wax na bés bu set ak cofeelam sëriñ bi day yokk mu ko bëggatee rek boo liggéey mu gën koo bëgg mbëggeel bu gën a taal bu gën a rëy mu jàpp ne fu mu toll di jooy di bëgg sëriñ bi far ci moom safku dumaa li xubbil xadimi fardan araam bëgg gi mu bëgg sëriñ bi dafa yeggoon ci ku mu xam ne bëgg nga sëriñ bi mu bëgg la ku mu xam ci moom noonu sëriñ baam ku ma sa jëf ci sëriñ bi safaan dootu man ci yow dara ku ma sa defal sëriñ bi daal ba xolam sedd ci yow mënatoo koo def lu ko naqari ñaari xista la ci indi benn dafa amoon jëmm joo xam ne daal daf ko jubluwutoon xeetu naqaral ak safaan ak tooñ bu ne mu di ko ko def waaye Cheikh Fadil ko mel yëgut ni ñu ngi koy def dara mu dem ba mënatu ko mu ñu ne ko yow de sëñ bi damaa jàpp ne wilaaya gi ñuy wax ci yow dafa dafa des ndax man li ma mel ci yow te ba fi mu nekk alkoogu ma jaaxal na ma mu ne ko yow dangaa xamul ca Jolof dafa am sëriñ bi doon defarlu bunt bu mu doon defarlu yow mi yaa ko defar ba mu ba mu sotti ba mu dikk ne xaakasa nii laa ko bëgg kàddu woowu ma la wax nag moo tax too mënatoo mënatoo ma def man mën na naqari waaw daaw defal nga sëriñ bi daal ba xool sedd ci yow rek man mënoo maa defal ma naqari man ñaareel mooy dafa amoon lu xewoon ci dëkk bi ci njaboot gi ba yoon am ci yoon ba yoon dikkee ba ne day def liggéeyam ah, te ñam koy ñam ko bëgg a def bokk ci taalibe sëriñ Tuubaa yi yoon fa bëgg a jaar ci kaw taalibe sëriñ Tuubaa yi la bëggoon a jaar lenn ci taalibe sëriñ bi mu laaj ñu laaj ko nag ne ko kat yoon de yow la jox dëgg ba dafa bëgg a doxal daa bëgg jox sa àq ci ñii muy laaj loo loo doon sàkku ci ñoom ñu def ko ci ñoom mu ne lu may sàkku ci ñoom loolu ñu bàyyi leen ñoom li ñu war def rek lañ def te li ñu nekk dëgg la ci ñoom bàyyi nañu seeni bokk dikk fekk Serigne Touba topp si ko toog fi moom te delluwuñu kon lu mën a dox sama te ñoom rek man maa war a seetal sama bopp man maa war a seetal sama waaye ñoom moom ginnaaw gëm nañ Serigne Touba bàyyi seen bopp ba dikk fii ci dëkk bi toog fi rek ñoom li ñu war a def def nañ ko man maa des ñu leen bàyyi kon bëgg Serigne bi ba ku jàpp Serigne maa nga sopp ko maa nga defa ko dara mënatoo ko def moom foofu la toll foofu la toll ci bëgg sëriñ bi daana bëgg gi bëgg sëriñ bi ak liggéey bi ko liggéeyee sàkkuwu ci dara daana wax ne duma doom ju bëgg a doon nu baayam duma taalib bu bëgg a seex ab taalib bi dong laa yàgg ma déedéet sax duma dara duma dara su seey ci biir sëriñ bi maanaam lu lu mu wax rek fiiraange xool jàpp ko mu jàll la maanaam nekk nii sëñ bi nekkee mu mel ni ñaar la waaw da bëgg a seey ci moom ba moom dootu amati far loolu cofeel bi bu tar foofu tolloon ci moom kon sëriñ bi ko bëgg gënaloon boppam gënal ko ak njabootam njabootuk sëriñ bee ko gënaloon njabootuk boppam daf daan fab njabootu boppam di leen boole njabootu sëriñ bi ñu leen di liggéeyal di yabal ci njabootu sëriñ bi ñu leen liggéeyal ba saa yu ñu leen yabee rek baax na bu leen gisatu te mu wóor ko ne njabootu sëriñ bi lañuy liggéeyal loolu baax lu ci njabootam yor te njabootu sëriñ bi soxla ko te yoraguñ ko mu jël ko ci njabootam jox njabootu sëriñ bi bi muy natt dëkk bii di la di penc mi te am lenn ci njabootam ay bokk ak i ak i njaboot yoo xam ne nekk nañ fu xaw a jege penc ni day yëkkati ñoom ñëpp randal leen ba ñu topp na leen mu rëddal njabootu sëñ bi ñu war jumaa ji jege ko yées ñëpp mu yóbbu am na ci ñoo xam sax dañu yóbbu sore sore ñu naan sëñ Pape sànni jëne doomam kon njabootu sëriñ bi kon njabootu boppam bi nga xamee ne mi ngi bëgga a noppi ci liggéeyam di fekki waajuram dafa nëbbu doomam yëkk feeñal doomi sëriñ bi doomi sëriñ bi ko war a wutu Cheikh Abdoul Ahad moom la woolu digal ko ne ko wëral réew mi fu fi taal nekk boo xam sabaa ko taaloon nga dem fa ñu saafante ak ba mu wëree ba mu daj ba ñépp xam na kii mooy doomi sëriñ bi ko bi topp ci moom ci mag ci ñi fi nekk ba mu dellusee la waaj fekk sëriñ bi kon bëgg mënta weesu dem ba ki nga bëgg gënal sa bopp gënal la sa njaboot kon foofu ci bëgg rekk waaw misaal la ci fam ci tolloon liggéeyal sëriñ bi léppam da koo jox sëriñ bi mës bëgg lenn ni boppam lépp lu ma am rek liggéey sëriñ bi la ko la mu mës a sanc day waat ne béréb bii su fekkee sëriñ bi taxul ma ñëw fi lu ma fi bay yàlla mel ni xorom waat ko te mës a bay lenn lu mel ni xorom fu mës a sanc rek lu mu fa liggéey ci liggéey sëriñ Tuubaa bi la ko delloo bi jumaa ji bi ko sëñ bi santaane waaye sëñ Modou Maam nu ko nettali moom sëñ Fallou ko ko wax euh, nee na jumaa ji ma tey sëñ Fallou wax ne xeer xeer wi jëkk ci jumaa ji maa ci teg wi ci mujj ma di ko laaj ne ko xeer wi mujj jumaa ji teg gi moom leer nañu waaye wu jëkkoo nu mu demee mu ne ko sëriñ bi daf maa woo ci njaareem ne ma danga maa yàgg a bind bataaxel di sàkku ci man ma liggéey loola ab liggéey ñëw na fi di ndigal lu bàyyi ko ci yàlla jaar ci yonent bi sallallahu alayhi dikk ci man ma di la ko digal mooy dama bëgg ñu tabaxal bu ñu wàcce Tuubaa ku dikk na la ca fekk ku dem na la ca ba jox ma ci ndigal waaw nee na yàlla dogal bañ demee ba àgg ci war a ay xeer ñu ko war a liggéey kenn ci ay taalibeem dox ci àllub ndokk bi ba téqtaloo aw doj muy sëriñ Ibrahima Ndaw fekk yëgoon na ne sëriñ baa ngi raaslu ay doj mu fexe ba déj ji doj wa di ko yët ko sëriñ Fàllu muy wasilaam ci buntam ci sëriñ bi sëñ Fall donc sëñ xam Mouhamadou Ndiaye Binta ne ko na koy sëñ bu xool ba xam ndax dañuy baax na bañ demee ci dox ko ko mu wan ko ñi war a taxaw liggéey bi ñu seet ko ne waaw yu dañ bu fekkee fa mu jógee bari na fa dana ko man ñu dem fekk ñu dem ndokk gëm jógee fekk nekk la fara ciy xeer bu jeex ca dajooye celu sëñ bi ñaan moom lañ teg moom lañ jëkk a teg ci liggéey bi mu ne ko loolu mooy teg gi ma teg xel ci liggéey ci bu njëkk bi bu mujj moom leer naa kon liggéey boobu la defoon mu yitteem sax ci dàkk ba yàlla dogal mu noppi coleet jébbal ko caabi ci weeru rajab bi fukki fan ñett ci weeru rajab dañ ko jébbal caabi jumaay Tuubaa dégg naa ci Serigne Mokhtar Diop bokk na ci sëñ Cheikh Mouhamad sëñ sëñ Jiilim mu ne ànd nag sëñ Cheikh Awa Balla ak sëñ Abdou Khoudous ak ay kilifa ci waa Daaru ci jamono ji ñuy liggéey jumaa ji ñëw ziyaare sëñ Fall lu indi ay addiya yu bokk yu jëm ci liggéey bi mu yendoog ñoom daal ci barab ba takkusaan di bëgg a jot mu ñëw di tàggoog ñoom euh, ñu di ko wax ne ko ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool ba liggéey bii nga sottal ko jàmm ba ba jébbale caabi ji mu ne waaw liggéey bi danaa ko danaa ko liggéey ba mu sotti coleet ma tëj caabi ji mu yor caabi kat ci loxam di yëngal yëngal naa ne danaa ko danaa ko liggéey ba mu sotti coleet ma tëj ko yor caabi ji mbaam ma def fi junniy at waaw ko liggéey ba mu sotti ma tëj ma tëj ko yor caabi ji mbaa ma def fi at na mu ko waxee defe ne ko noona ba liggéey ba noppee nag jàpp na ne amatul yittey boppam amatul yeneen yitte ndax ndigal lañ ko doon defal mat na lu dikkati mu jëmale ko ci euh, waa sëriñ bi ak ay bokk ak i njaboot ak bokki jurit ak lislaam euh, noonu la taxawee ci liggéeyu sëriñ bi kon ci taalibe rek jéggi na ci dayo ci jege suñu boroom nekk suuf yi nitug yàlla bu ñu waxee taalibu sëñ bi jàpp ne ci wet gii rek ràññikoon waaye ci wàllu jaamu yàlla ak farlu yeggoon na ci foo xam ne xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax muy xadisul qudsi ne man aadaali waliyan faqad azanu bil harbi baa ngi ci wa maa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili xatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu samaahu allazi yasmau bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa la in saalani la utiyannahu wa la in istaaz la uizannahu da ngay gis ne xadis boobu déggu na ci moom Cheikh Mouhamadou Fall ku farlu la lool ci jaamu yàlla téeméeri rakkaa daana ko julli daana ko naafila guddi juróom fukki julli ya nga xam ne moom lañ yoonaloon joxoon ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi gi rañaan ma di ko wàññi ba mu doon juróom moom daanaka matal ci bis bi ci ay naafila mas na ko leeral ni ñu koy def ba matale ko noonu daana ko def ku mën a jàngal Faal la woon lool am na kilifa bu ko jegewoon koo xam nee na suñ Faal lii ñuy wax naan lu mu wax yàlla dogal ko ñu defee ne lu ne la man jàpp naa du lenn lu may takkoo gi mu takkoo alxuraan ba làmmiñam saf sàpp ak alxuraan te alxuraan di dëgg dëggu alxuraan jooju moo ko waal moo ko waal rek ba lu waxati muy dëgg ni alxuraan nekk dëgg kooku seet na ko ak mën a jàngam alxuraan am na ku nekkoon ci biir kër gi daan liggéey nee na daana gis Cheikh Mouhamadou Fadil mu julli bu sëggee di sujjóot leneen dafa yàgg yàgg ba mu ngi mujj ñaaw jox sax mbaa da mbaa dafa am xew kon ci wàllu jaamu yàlla euh, loolu yéeme na ca melokaan yi wax ne mooy melokaanu nituk yàlla dëgg dëgg dëgg muy suufi ni ko sëñ bi waxee wal xaasil suufiyu aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamin fasaara saafiyan min al akdaari mumtali qalbi min al anwaari min al afkaari munqatian li rabbihi min al bashar musawiyan dinaara ayni bil madar kal ardi yurma fawqaha kullu qabix wala turi min batni illa malix yatawha al karimu wal laimu wal baru wal asir wa tastadimu wa ka sahaabi wa ka qatri al maai fi saqi wa fi zilli wa saqi bi resti fa ma yakun kazaka fa huwa suufi aw laa fasu da'wa al ma'ruf lii bu ko seetloo sama fa lépp na ci moom xam-xam bi wax naa ko sànq am na benn misaal bu ma ci desee woon xasidaam bi mu bind wax li xayrika la nashku ilahal wara amra wa ma in lana illa ilayka iltijaa dahra ba mu ko bindee am na benn naar fekkee juum ibnu Hanbal la ba mu ko xoolee daf ne xasida gii de yeeyoo woon nañu boole ko ci xasida yi daan bind ci kaaba gi di ko taf bokk ci wax yi gën a rëy bu ñu tuddee muallaqaat mooy yi nga xam ne buñ masaa bu ñu dàqa way masaa way ba àggal ñu tànn yi ci gën a rafet bind ko taf ko ci kaaba ga ngir wane ne ñii ñoo dàqa way mu ne xasida gi mën naa bokk ca xasida yooyu te bay wu njëkk yi rek li la nashku ilaahal wara amra wa ma in lana illa ilayka tija dahra ñi xam balaaxa xam nañ ne ji wax gii toroxlu dem na doy ba muy gaaral yittey nit ñi wa ahlu duna axnat alayhim surufuha wa ma minhum illa axu kadidin xarra fa min mustakin faqran wa min mustakin balan day mustakin mustakin daynan mu minhum axra gaaraale na ko gaaraale boo xam ne ci balaaxa jege na leen mu ne waa àdduna jépp jamono sonal na leen koo ci gis xol baa nga tàng jër maa nga jaaxle lool na ci xat-xat yu tar ñii ak ñàkk la jàmbat ñii ay natt la ñuy jàmbat ñii ay bor la ñuy jàmbat te ñuy jàmbat ay bor sax ñoo ca gën a yey ndax la ñuy jàmbat ñoom ci Afrique la aju daal nag wa fii ma mada daaqa zamaanu alayhim wa fii ma fa yakun wala za wala zifra ne kon la weesu day jamono metti woon lool ci jàmm yi waaye kon suñu borom maa ngi ñaan lii di ñëw na dem na loola dem ba buñ ko déggati waxi ni mu wax ci xasida yi yéeme na yéemaay boo xam ne ilmun aalimun amil bi ilmihi joojee aalimun ci moom leer na nañ Euh, jëfe gi mu jëfee xam-xamam wax nañ farlu gi mu farlu ci jaamu yàlla waaye ni mu dëddoo woon àdduna nga xam dafa wan ginnaaw àdduna wan ginnaaw gu jég gi dayoo dañu daan wax ne àdduna weeru koor la li fekk jeexul juubu du wees moom jàpputoo ne àdduna weeru koor ndax weeru koor da nga dog jant bu songa dog bu jëlee nga jàppaat bu fajaree nga jàppaat di ko def weeru jeex moom daay jàpp ne àdduna benn bisu koor la benn bëccëgu koor bëccëgu koor kenn du ko dox moo tax dafa muñ dafa woor àdduna bu jógee dafa woor àdduna bokk ci àdduna da ko muñ woor ko du sol lu rafet du dëkk fu neex du dëkk fu rafet du lekk lu neex du lu du denc alal lenn lu bokk ci àdduna rek da ko da ko da ko da ko da ko da ko muñ benn da ko woor benn yoon boole kook yàlla it bari ay jafe-jafe yu mu koy teg ci àdduna ak i ak i xat-xat lool ba bi mu demee ba ci mujj jamonoom bi mu wutoo sëriñ bi ci jataay bi ba lépp ñëw woo kenn ci mag ñi waaye sëñ bi Suleymaan nag xool waay xool àdduna muy def war nañu ginnaaw ban ban ban àgg foo xam ne wóor na ko ne bala fee amaat lu toll ni fi amoon jóge mu doog a ñëw waaye nan nan nan ko muñ des ci àddina nan ko muñ lépp ñëw na kat waaye nan ko muñ ne ko nan mel ni kuy gasub teen ba tisbaar jot teen ba bënn te fekkoon nga woor ndax ndox mi walwal yi ci teen bi te fekk tisbaar jot nga woor ndax dana tax nga doog de da ngay muñ rek ba jant so da jant so mooy sa àdduna jaax nga dellu kon dëddu àdduna wan ko ginnaaw nga xam ne waa euh, dinaaru ayn bil madal jooju mu sawiyan dinaaru ayn bil madal nga xam ne alal maanaam àdduna ak ak euh, dinaar xameewu ko xale jooju ñu wax noonu kon wér la ci loolu moo tax man koo joxe nag man koo joxe lu ñëw rek mu joxe ak lu bari bari di joxe alal di joxe lépp lu mën a doon ci loo xam ne lu ñuy jariñoo di ko tedd rek mën na koo joxe moom ci darajaak ci baatak ci alal ak ci lépp lu ñëw rek mu joxe ak baaxam maase maase la ñépp nga xam ne ku baax ku bon ak kuy topp ak kuy moy ak euh, jullit ak ku dul jullit ñépp rek la jàppe ay doomi aadama yoo xam ku ñëw fi moom dangaa war a jariñ waaye kenn loroo fi moom noonu mu ñu ko wax ci ci bay gi daa war a mel ni aw niir nga xam ñépp lay tiim wala ab taw nga xam fépp lay sotti noonu la ak baaxam meloon da noonu la kon melo yi dëggu na ci moom sell ba kenn du la mën a nëxal teey te sell ba xam dara doon mën a nëxal nga xam ku mën di ñëw ak lu mu mën di def ak lu mu rëy rëy moom daan tekk rek teey dara mënu ko yëgal am na kilifa ak àdduna bu ma sa ñëw fii ci moom ànd ak xadaram wax kàddu yi ñagas a ñagas a ñagas ci teewaayu mbooloo mépp ba noppee mu jël kàddu wax kàddu yi gàtt daane man ma li bëgg ñu xam ko daal mooy man maay Sénégal maay Sénégal gàttal wax ja euh, kooku di tëkkoog lu mu def ko ba yëf yi jàllee mag ñi ne ko ah tey day jaaxal nga ñu daa nga jaaxal daway tey raw ndax kii di jàppoon nañu boo ko tontoo àdduna jaxasoo mu ne waa ji dama dul dama dul as ndox bay baax bu ma as ndox bay baax géej laa géej moom lu ñëw ca nga koy fa nga koy fekk leggam ja ca nga koy bàyyi ca nga koy fekk ca koy bàyyi kon sell googu ak tey nga xam dara mënu koo lëmbaaj dara mënu koo naxal loolu kon mu ngi ci moom kon melokaan yi nga xam ne yépp wax nañ ko ci suuf yi ci bayit yi boo ko nattee ci moom gis ko moo tax résultat bi ñu wax ca xadis ba feeñ na ci moom ci ñaari anam bu njëkk bi mooy suñ borom dafa wax ne bu ab jaam bu koy ab jaam joxee léppam ba jeex ci moom takk da koy bëgg moom suñ borom day bëgg jaam su bëggee jaam bi nag mooy doon léppam moo koy féete fépp di ko defal lépp am beneen xadis bi wax ne bu jaam bi àggee foofu suñ borom day wax si naa Jibril ni ko yéeneel ci asamaan ne jaam sàngam diw sàngam jaamu bu yàlla bopp yàlla bëgg na ko yéen jaam ñépp bëgg leen ko su ko defee ñépp bëgg ko te ñu ko seen bañ loolu am na cofe gu mbooloo mépp sopp maase ci ku baax ak ku bon jullit ak yéefar ñépp maase bëgg ko loolu day wane ne yegg na foofee suñu borom wax ne jaam bu fa yegg yàlla wax ne na ko ñépp bëgg ñépp bëgg ko te ko seen bañ benn ñaareel ba mooy ci wax ne bu fa jàmba yeggee lu mu bëggati yàlla def ko ñoom dañ naan kun rabbaniyan taqul li shay kun fayakun euh, sufiyanke yi ñooy wax loolu ñoom mooy demal ba jeex ci sa boroom boo jeexee ci sa boroom loo bëggati yàlla def ko moo tax mu yeggoon moom it ci lépp loo xam ne namm na ko rek mu dajeeg dogal suñu boroom kon ñaar yi ay firnde la hmm. ci suufiyankeem ak kaweem li ci li ñu ngi bëgg a daaneel ñu jégal ñu li ci topp mooy jikko ji fànn jikko ju rafet damay jàpp ne wilaaya Sëriñ Faadil li xamoon ay jikkoom yu rafet dañuy jàpp ne moo gën a rëy ci ak wilaaya jikkoom ju rafet jéggi na day àgg na foo xam ci kawe mu ne su ko misaal wax nañu sànq ak di doomu àdduna wax nañ ak tabeem waaye ak lewetam yërmandeem ak xajoom ak yaatoom nga xam ne na mu kawee bu foofu fam fam ne ca kawe fala ne kenn du jot ci moom bay jariñ ci moom waaye mu wàcc ba jege suuf jege nit ñi nga xam ne boo ko boo ko jubee mu ubbil la kanamam ci ci ci ci ci ci ci yaatu kafak yow nga mën a yegg mu wan la ne nit ngay waxal nga ñeme ko bu ko defee sa aaju man a faju loolu day wane jikko ju kawe ndax dañu wax ne yonent day yéeg walla yu day yéeg maanaam yoon day wàcc kon ku gën a jege yàlla rek mooy gën a yor ay meloom melo yu suñu borom te mooy yërmande ak xajoo ñëpp ak jariñ ñëpp ak jéggal ñépp ak muñal ñëpp loolu dañ euh, koy waxee ne te taxallaqu bi axlaaqillah loolu la dañ koy loolu xadis la dee leen roy yàlla loolu la jikkoy suñu borom mooy danañ ko niru nirlu ci jikko yi nga xam ne moom la ñëpp soxla mu yërmande ak jéggal ak njariñ ak muñal ak xajoo ak yu demee noonu jikko yooyu nag àggoon na ci foo xam ne jamono soxla na ko lool fii ñu toll nii Cheikh Mouhamed Fadil ku bëgg am réewam la woon koo xam ne réewam ñoroon na ko lépp luy dox ci réew mi da koy yëkk di ca taxaw laa ko ca war ci xalaat ak jëf kaaraange réew mi ñor ko ak bennoo réew mi ak jàmmam fii jamono tollu tey jii ci jafe-jafe eh, ñii yàlla dogal ñu war a ñu mel ñoo war a lijjanti jafe-jafe nit ñi xalaat yi ci jot toll nii rek ba ko suñu waxee yàgg na accident yu bari yii di am ak mesures yi ci ciy jël nii bu yàgg la waxoon ne waxoon jiitu réew mi fi nekkoon ne ko waa nañuy def ku ku ku defati accident rek ñu fab këyitam xotti ko xam naa ci nit ci xere yi bëgg bëgg oto goo xam ne buñ ci xotti woon ñaari këyit ak ñett rek kenn dootu defati bu ñu xottee këyitam mm-hmm. waaw nga xam ne kon ñàkk sécurité ak accident yi xewoon ñoroon na ko ba joxewoon na ci xalaat boo xam ne ginnaaw ñeent fukki ñu ngi ciy doora gindiku di ca dem di ñu jàpp ne réew mi li koy doxal mooy nit ñi delluwaat ci àll bi ñu jox leen ay jumtukaay ñu liggéey loolu bu yàgg la ko daa wax jóge leen ci soow bi te ci penk bi di wax njiitu réew ma ne ko jox nu suuf si féete ci penk bi jox nu ko te defal nu fi am ndox ak liy soxla ci jumtukaay ñu liggéey kon dem ci àll bi liggéey euh, loolu moom la daa wax di ci sant nit ñi kilifteef taxawaay ci kilifteef moom la mujjee jamono soxla na eh, royukaay ci sama fàll ci kilifteef melokaan yi mu yoroon mooy melokaan yi gën a tàmm ci kilifa nga xam ne képp ku na mel rek ñu jàpp ne yaa ngi dox doxalin wu mucc ayib bu rafet dafa taxawoon temm ci sàmm lislaam ji sàmm yoon wi am ay taxawaay yu ci daa taxaw bokk na ca bëggoon na nit ñépp tënk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg seen mbir ci yoon dëppale ko sharia ak sunna lépp luy bidaa akum po ak caaxaan ñu soli ko euh, ni ko sëriñ bi waxee ne yaa ayyuhan nabiyyu da' maa yanfad wabghi munan fi abadan laa tanfadu mulaaziman sunnata xayri rusuli alayhi xayru salawaatil mursil is fi itibaaxiha takunu salima wa fi ixtilaafiha takunu zalima kon dafa bëggoon ñépp tënk ci sunna ba bis yi nga xam ne sax mooy bis yi ñuy màggal di ko fàttali ko ay nit ñu baax lépp da koo tënkoon ci biir bis yi fi xasoon nekk ba noppi bis yi fi nekkoon ba noppi ci ko daal tënk bëggul woon kenn ku sos bis bu bees boo xam ne day génn bis yi fi nekkoon moo xam màggal yépp mu jaar mu ci daa joxe ndigal kazu rajab lay wax nisfu sha'ban lay wax laylatul qadri lay wax màggal yépp da ko dajal ci ñetti bis yi waaw ku yàlla dogal nga dajal kazu rajab mooy sëkki bu fekkee nisfu sha'ban la baax na bu fekkee dajewut ak benn ci te ngay nitu diine alxuraan yépp ko bokk na doon laylatul qadri waaye bis boo xam ne bokkul ci ñett yooyu daaw ko joxe xeeti xew-xew yii bu ngénte yeeg ceet yi da ci daa wax waaye ji ngénte dara lu may joxe aw tur rek waaye waxit ne ñi ñuy joxe ñuy ànd nañ koy xam daal wax ne sëriñ bi ñaari la waxoon ñaari téeméer yooyu mu waxoon nag ci jamonoom war naa weesu foofu waaye nañ ko ko xaymaal mu woo boroom xam-xam yi jamonoom ci ñu xaymaal ko ba ne ko loolu mooy war a toll ci ñetti junni mu ne waaw kon képp koo xam ku demagut la junne ak juróom téeméer mbaa ñaari junne bu dee ku dem fenn ba delsi bu dee koo xam demagul bu mu weesu ñetti junne nga xam ne ndigal lii ñuy wax tey jii naan ñetti junne ñaar téeméer moo ko indi woon ngir bëgg ñu bàyyi puukare ak caaxaan ak fo ci xeeti euh, ci xeeti xew-xew yi kon dafa bëggoon ñëpp tënku ci sunnas yonente bi sallallahu alayhi loolu bu ci yar nit mu bëggoon it ñu nas mbir mi ñu féete ci diine ji doyloo diine ji yem ci di jàng njàngum diine te bàyyi njàngum àdduna waa àdduna paluk àdduna yi ñu bàyyee ko waa àdduna daawul nangu doomi soxna yi di jàng njàngum àdduna daawul nangu it ñu yor ndombay tànkay àdduna dafa bëggoon ñiy des di sëriñ ñee nekkal leen fee ñu nekk doon seen jumtukaay bu ñu soxla sant leen ko moo tax mu daa wax njiit mi fi nekkoon daa ko am nay fere yoo xam dañ dañu dañu bëgg ay siis ay siis feccee penc ma man leen déedéet ndax yow mi yaay sama siis yaay sama siis yaa ma fa toogal loolu mooy dëppoog li borom xam-xam waxoon ne istaxna bi diini an duniyal muluuki kama staxna al ko bi duniyaahum an diini nee yow nit diine gi yamal ci sa diine te séddoo ko te doyloo ko ni nga xamee ne ña yàlla sédd àdduna ñoom jàpp nañ ci àdduna amul soxla ci diine wutuñu waaw nañ mën a muñee diine yow it man naa la muñee noonu àdduna nga bàyyi leen ko noonu itam la bëggoon ñu dox ko mu nekkoon ku dëgër nag ku dëgër ni mu lewete ni mu yaatoo ni mu xajoo noonu la dëgëre lu mu set ba muy dëgg ñoo koo doxal da cay taxaw te mu la ca war lépp mu def ko ba loolu am bu dee war a am bu dee wërta am it day taxaw tem ba loolu du am kon ku dëgër la woon koo xam ne kilifteefam euh, lépp lu àgg ci war koo def da koy def lu ñu war a tere it da koy tere te da cee teg tànkam ba loola day fànk loolu it luy soxla lool la ci kilifa mu nekkoon nag ku bari yërmande ba ñépp yëg ne moo leen yërëm moo leen yilif ba foo jàq rek ja buñ la tuddee nga làqu ca moom boo bu dee sa kilifa ci ak bu ko doonul lépp jàpp ñëpp jàppoon nañu mooy seen kilifa euh, ka juba ka juba rek ñëpp faay ku jóg rek bu ñu la waxee nga ne sëñ fal loolu yërmande ju yaatu ja euh, ak xajoo ga moo ko moo ko waral te loolu mooy kon ku jàpp ne ñëpp moo leen yilif moo leen war a yërëm moo leen war a aar moo leen war a taxaw li may tëje mooy am na imaam bopp tiijaan bu ma nett bi ne dafa jóge mbos ànd ak ñaari moroomam ñoom ñëpp nag ay tijaan lañ ay mbokk lañ ñu ñëw nag di ko siyaare si kenn ku nekk ak yitteem bu njëkkee ñu sol seen daal ak seen i mbaxana dugg ci kees gi kañ fa fekk gëdd leen sumb leen seen dàll yi ak seen mbaxana ay tijaan bi léegi dal baa di génn ci saa si daal di jàjj kooka daal leen woo ñu ñëw mu nuyoo ñoom mu def daal ne ana ana fekk ba mu ko waxee am na ku ne waaw ay tijaan lañ kay mu daal di mu dal di ana ana ana bi bi bi leen kii waxee ne xanaa ci ana ana kii ne woon waaw tijaan lañ mu ne ko maanaam mu ne ko góor tijaan dëgg kay tijaan dëgg daal di woo waajo gis nga ci sama kër gi waxuma la ab tijaan waxuma la xaadir waxuma la naqshabandi waxuma la jullit waaye doomu aadama bu boo xam ne du jullit sax war naa mën ñëw fii aajoom fajoo kon lu weesu tey bi fi nit dikkati ngeen di xool lu doon ak di ko jéem a yàq tiijaan tijaan ak murit murit taalibe dañ cee wàllu waaye seen yoon nekku ci kan la woon bu dox ci diggante kilifa ya ñu doonoon ay doomi bàjjan ak doomi nijaay di kalante taalibe dégg ko rek dugg ci moo waral yi ñuy wax nii waaw waaye war sa war sa war sa daal wax wax ci daal wax yu yaatoo yaatu loola ka ko fekk moom moo ko nekk daal di wax ku ci nekk daal di koy wax la yitteem mu daal di ko koy fajal mais am na si koo xam ne ab téere la doon wutu si boo xam ne day téere bu raar ci réew mi mu dégg suñ sëñ Fallou dafa bari téere téere bu ne daanaka am na ko ndax ni mu meloon ci xam-xam ak bëgg borom xam-xam yi mu dikkoon bëggoon mu dimbale ko ci ba mu waxee turu téere ba sëñ Fallou ko téere boobu de yëruma ko waaye ginnaaw da ngay yaa ngi bëgg a génn di jàng jàngi tuddal ko bindal ko turu ab maktaba ca Maroc ne ko boo fa demee téere bi ne ko fekk waaw kon kooku euh, taxawaayam ci ki kilifteefam moom it boo ko dee xool mat na ci sëkk kon daal wet wet jëmm la joo xam ne wet goo ko natt rek mat ko waaw waaw sëriñ bi tam soo ko xiyaas mu yees ko bu tamit palaas boo ko wutal mu fees ko mhm. loolu mën nañu wax ne rafaatal na ko Cheikh Mouhamed mu nekk nag ku am tawféex ci sëriñ bi lu bari lu sëriñ bi naaloon mu yeggaleel ko ko dafa am sëriñ Fallou xam nga dafa yàgg jaar dafa bari yàgg jaar ay bari ay jafe-jafe jamono daan bind sëriñ bi ba di ko diis boppam ba am bis sëriñ bi woo ko bu ñëw mu ne ko boo bind ci ba tax di nga diis dara moo xam dara ci sa koo xam ne wóor na la am nga cër te bis boo jotee sa cër ñu bari xel seeni cër boo des gor diir ba nga ba ngay muñ ba jotee sa cër war nga ko mën a muñ kon moo wax si dara nee na mu toog ba jëmmi jamono yëf yi metteet yi ba mën a tuta ñàkk kii mu bind xasi rek shakawtu umóor yi wa zanbil azim li rabbil qadir ghafuur rahim daal ko jox sëñ bi sëñ bi jàng ko xam na mu ko bëgg a wax daal di bind geneen xasida moom it tontu ko def ca bismillahi rahmani sallallahu taala ala sayyidina walana muhammadin wa alihi wa sahbihi allahuma ya sami abdoai salli wa sallim wa barik ala sayyidina walana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa habbi ya baaqi bika al yawma akmaltu billazi zabba ma karihtu yaqina bi siwa wijhati wa durran yaqina xasida goo xam ne daanaka lu waxoon ci sakatu rek wax na lu safaanu moom ci xasida gi ci lu ko yàlla defal ak fu mu toll ciy may daal koy jox sëñ Fallou mu mel ni mooy tontam ci xasida gi bi ñu jox ko waaye sëñ Modou Mamoune moo ñoo ko ñoo ko bokkal ñoom ñaar nee na sëñ Fallou jàngee xasida gi xamul lu ko sëñ bëgg a tontu ci lu mu ko bëgg a wax ci xasida gi mu ko jox mu ñëwoon ko sëñ Afia si Afia jàmm man ko man ta wala waaye ne ko nan jàpp nun ñaar ne am na lu rëy rëy lu la sëriñ dëhër ca xasida gi loo xam ne tax moom mu wax yàlla ko wax nee nañu dañ ci xasida ga sëñ Fall dañ ci ko ba ba sëriñ bi ñëw Tuubaa ba Cheikh Moustapha wutu ko ba noppi liggéey ba sëñ Fall wutu ko ba léppi dox jafe-jafe yépp jeex ba liggéey bi tàmbaliwaat sëñ Afia fàttali ko xasida ga dal na haa kon bi ko yow ma ak maltu ja ab junj la woon daal war sëñ Baara jox ko ko ne ko na ko jàng ba mokk mu dem jàng ko ci kanam sëñ mu jàng xas bi ba mokk mu ñëw fekk sëñ bi ci waxtu yore mu toog di nit ñi nuyoo mu dikk nuyoo daal ne safeet ba dem ba dànd ko daal ci xas bi ba mu tàmbalee sëñ Faalu daa bàyyi mu noonu def lépp lu teg di ko déglu ba mu jàng ba daaneel mu woo ko ba mu ñëw ba tolloog noppam mu ne ko gis nga mag de mu ne ko waaw waaw kon dikkal yow ma ak jooju xam nga dikkal yi ci suñ borom la jëm al yawma akmaltu ma ngay jinju aaya al yawma akmaltu lakum diinakum waaw mel ni kon suñ borom day ñaan suñu borom defal ko ma laay joojee al yawma akmaltu joojee yàlla defal ko ko ci kattanam mu jox na xas ni sëñ Fallou euh, bi ñu demee kon ba lii xew mu gis nekkoon ndeke bokk na ci lañ ko doon junj muy tontam mooy ne ko li ma gën a bëgg ci kaw suuf mooy yeggale naalu néegub yàlla ci kaw ci kaw ci ci Touba nga xam ne keroog ba mu sañcee Touba la ko naaloon moom jamono foofu sëñ loolu yaa ma ko yeggale. su boobaa lii nga may jàmbat danga ko fàtte fekk na mu yeggale ko lu bari lu jiit loolu yeggale na ko yéeneem ci joxe faratay aj ak ziyaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu demee daf ne xasatu ziyaarati nabil karim bila zadin an cheikh al xadimi wa xutul muxriqaati fasaalamat ni ba waaxiquha wa xibtu an nadimi wa xamlu zaadi aqbahu kulli cheyin isa kaana alxudumu maa ngi fas yéene ziyaar yi sang bu tedd ba waaye sëriñ bi laa koy defali ani Cheikhul yi moom laay defali li may def kon yeggale na ko yéeneem jooja sëriñ bi amoon na yéene sant yàlla ci diggante Tuubaa ak Daaru Salaam Daaru Minaan ginnaaw bu mu jànkoonteeg coono yi tukkit géej ga ba yàlla defal ko coono mu ko defal mu bindoon ca géej ga ne ginnaaw bi nattu ba jeexee liggéey ba ma mu ne bu ma delloo Sénégal fas na maa yéenee sant yàlla ca Touba ak Daaru Salaam ak Daaru Mina bi mu ñëwee njaareem mu joxe ndigal ci ñu santale ko yàlla ci bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci at mu ne lu ci waaye man def ko ci tàmbale ci ganaar ba ci gileem joxe ndigal ñu tàmbali ko Serigne Fall moo ko yàggaleel yéeneem ca bis boobee andil ko ko Touba ak Daaru Salaam ak Daaru Mina àddina jëpp di ko fekk di fekk di ci ñëw di ko santal yàlla mu yeggale ko yéen yooyu kon bari na lu mu ko yeggal ci ay yéene kon loolu tawfeex la yu rëy rëy yu ko sëñ yu ko suñu defal ah, ci diggante mag ah, sëriñ bi kon ñu ngi tànk fii suñu kàddu di jégglu guddal gi ñu guddal ak tey gi ñu téye kilifa ci jotaay bi eh, waaye xam nañ ne ki ñu waxtaane seen soppe la seen yaakaar la ni mu ko doone ci ñun kon xay na lu metti metti danañ ko mën a ah, jéggale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu